asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum monde entier man la seen doom seen rakk Talla Diazaka donc depuis une semaine de semaines ñu ngi gis feebar bu ñu naan coronavirus mu dugg fii suñu réew donc mën naa ne en tant que artiste en tant que porteur de voix en tant que jeune bi nga xam ni dafa judd ci réew euh, war contribuer ci réew mi donc mm, maîtriser wu ma nag coronavirus mais gis naa euh, ci tere yi gis naa aussi ci médias yi ñu naan euh, contact moo koy joxe muy nuyoo. wala nit ñëw laal fenn nga laal ko donc en tant que jeune ñun ñun suñu réew mi ñun ñëw war a booloo bokk ndey ak baay avant tout donc euh, moytu euh, li gars yi wax ni moom moo mën a joxe coronavirus donc ba pare ñun ñëpp ku ci nekk euh, boo amee sa 5000 francs wala nga am sa 10 000 francs y a des yi nga xam ni ay taalibe lañu. Euh, muy suñuy suñuy suñuy mbokk nekk ay xale yu ndaw nekk ci ci mbedd mi amuñu fu ñu fanaan comme tey ñun ni ñu amee opportunité wu bu ñu gis leen ñu xam dugg suñu kër yi euh, tey ñoom tey buñ leen mënee jëndal lii euh, jarul dara muy muy muy muy gel gel de main yi nga xam ni ay sanitaire la yoo xam ni jarul dara et ñun mën nañ ko jënd ñu ñu ñu bokk ko ak suñu mbokku jeunes yi bokk ak ñi nga xam ni amuñu doole donc en tant que jeune euh, mën naa ni euh, fexe naa ba am ci as tuut nga xam ni partagé naa ko ak ñi nga xam ni euh, mën naa ni taneew ma leen sax mais ñoo ñoo war a bokk li ma am donc nag parce que boo xoolee lii ñu ñu bokk ko ak suñu mbokku jeunes yi bokk ak ñi nga xam ni amuñu doole donc en tant que jeune euh, mën naa ni euh, fexe naa ba am ci as tuut li nga xam ni partagé naa ko ak ñi nga xam ni euh, mën naa ni taneew ma leen sax mais ñoo war a bokk li ma am donc nag parce que boo xoolee lii képp ku la nuyu nga rus ko parce que Sénégal rusanteel daf fi am donc war nga mën a jël sa sa sa gel de main nga def ko sa sa sa loxo nga nga raxasu parce que wóorul feebar boo xam ni day rayee euh, ñi naan am na fi ñi naan amu fi amul benn importance li am important mooy ñun en tant que jeune réew mi en tant que jeune réew mi gis nañu ministre bi génn mu def euh, déclaration mu ne am na 24 cas yu am Sénégal donc nañu nañu booloo nañu nañu nañu muus nañu jàppante ku nekk jël say matukaay di raxasu ba set ah moytu contact direct yi donc en tant que jeune en tant en tant que de voix moo taxoon maa ngi laa def vidéo rek parce que même bu dee am na deux personnes wala trois personnes yu may yu donc ñu bàyyi ci xel voilà nañu nañu nañu mot coronavirus bi mu jóge Sénégal.